ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسع الأمة اللهم سل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن شرش عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقب ثم تردون إلى عالم الموت حقيقة يدركها كل إنسان وواقع لا ينكره عاقل فقد كتب الله على خلقه الفناء ولله ذي العزة والجبروت البقاء فلا بقاء إلا للملك الحي الذي لا يموت فسبحان من تفرد بالعزة والكبرياء وطوخ عباده بالتوخ الفناء وفرقهم بما كتب عليه من السعادة والشقاء وجعل الموت مخلصا لأوليائه السعداء وهلاكا لأعداء الأشقياء والموت نهاية كل حي قال الله تعالى لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقد أمرنا النبي أن نذكر أن نكثر من ذكر الموت كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات والناس في ذكر الموت على ضروب وأصناف فمنهم المنهمك في اللذات المثابر على الشهوات لا يخطر الموت له على بال ولا يحدث نفسه بالزوال ولا ولا يذكر الدار الآخرة لأنه مفتون بالدنيا وشهواتها واتخذ إله وهواه فأسمه ذلك وأعماه وأهلكه وأرضاه وصنف آخر وقليل ما هم من أسيل من عينه غذاها وكشف عن بصيرته عماها وعرض عليه الحقيقة فرآها فلبى المنادي وأجاب الداعي وشمر لتلافي ما فات وتأهب لهجوم الممات والانتقال إلى محلة الأموات ومع ذلك فإنه يكره الموت ولكنه لا يكره الموت لذاته ولا لأنه هادم لذاته ولكن يخاف أن يحتوى عن عن الاستعداد ليوم المعاد والاكتساب ليوم العساب فاذكروا الموت والذكرات وحسرة الروح والسفرات اذكروا حول المطلع فمن أكثر ذكر الموت أكرمه الله بالثلاث تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشرة العمل ومن نسي الموت ابتلي بثلاث تشفيف التوبة ترك الرضا بالكفاف التكاسل في العبادة فترك الموت يرتع عن المعاصي ويلي ويلين القلب القاسي ويمنع الركون إلى الدنيا ويحول المصائب فتذكروا الموت فتذكروا أن لعلكم تسمون قال ابن عمر رضي الله عنه سعى رجل من أنصار من أكيس الناس وأكرم يا رسول الله قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم اللقاء يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وأشهد أن سيدنا محمد عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع ومن تبع وقته فآثاره ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا ألهمنا لا وإياكم الرضا بقضاء وقدره ورزقنا وإياكم وجمع المسلمين الاستعداد للقائه أنه ما من مخلوق مهما امتد أجله وطال عمره إلا والموت ناسل به وخادع للسلطان ولو جعل له خلودا لأحد من الخلق لكان أولى بذلك الأنبياء والرسل وكان أولاهم بذلك صفوة أسفيائه سيد ولد بني آدم على الإطلاق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عباد الله يقول عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر إن نفعت الذكرى ويقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصيبته فيه فإنه ما من مصيبة أعظم من فإنه ما من ما من مصيبة أعظم من مصيبة أيها المسلمون عباد الله إن الموت مما ينبغي الاستعراض له واستشعار قربه فإنه أقرب غائب ينتظر وما يدري الإنسان لعله لم يبق من عمره إلا اليسير ومقبل على دنياه ومعد على آخرته الموت باب وكل الناس داخلون فليت الشعر بعد الموت ما الدار الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار هما مسيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع الآخرة ومن حياة تمنع خير الممات ومن عمل يمنع خير العمل اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وجعلنا ممن كتب لهم الحسنى والزيادة واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا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 mooy grande mosquée bi jiitu ci gox bii di Madina Fall yàlla dogal na ñoo ko gisandoo ginnaaw bi imaam defee xutba bu am solo boobu mu def fàttaliwaat nit ñi fa tabaarakallaahu ci li nga xamante ni tey moo nu fi indi te bàyyi nu fi muy wa maa xalaqtul jinna wal yax illaa liya'buduun waaye fàttali nu it li nga xamante ni jamono jii ñu toll ah wax dëgg yàlla tegaloo na lool donte daal na tegaloo waaye fi jamono ji toll moom yéeme na waaye ñuy ñaan yàlla rek yàlla na sama dolli leen ñi nga xamante ni jëlee na leen fi ñuy suñuy kilifa yi diine ji nga xamante ni jamono jii ñu toll bu ñu ci tuddee rek fa tabarakallahu imaam Tafsir Sakho mi nga xamante ni bërki démb la fi jóge yàggul dara wax dëgg yàlla démb ci alxamis ji ah, Pam Malick si mi nga xamante ni moo doonoon porte parole ah, maam si di Hadji Malick jóge fi waaye itam tey jii ci ajjuma ji nga xamante ni ci la ñu nekk ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane sekk di xalifa maam Amady Ndaat moom itam wàcc ab liggéey waaye itam fa tabaarakallaahu jumaa ji ñu nekk itam imaam Ndiol Cissé ku ne xamoon ko taxawaayam ci tund wii di Thiès rawatina Madina Fall waaye rawatina jumaa jii ñu ne moom itam wàcc ab liggéey démb ñuy ñaan yàlla ñu ñëpp yàlla na yàlla nangu seenub liggéey ci lislaam bi liggéey waaye ñu toog ko fa tabaarakallaahu imaam Gora xam naa ne rek ci gàttal dañuy tënk suñu kàddu ndax waxtaan wi dañoo bëggoon li ci ëpp moom mii ak ñi ma ko seqal ci jumaa ji ñu def ko bëggoon a xam rek taarixu jumaa ji li ko sanc ni nu ko daan defee ci jumaa yi nu jaar yépp ba yegg si fii tey bëggoon a xam itam fa tabaarakallaahu doxinu jumaa ji ndax xam naa ne fii jamono ji toll muy feebaru coronavirus bi bokk na ci li nga xamante ni sart yi nga xam ne kilifa yi joxe nañu ko ñu ngi koy sàmmante ak moom bu baax a baax a baax ndax gis ni julli gi demee xool mbooloo mi ni nu soreyante xool yi itam yi ni nu ko defee xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi sàmmante ak sart yi nga xamante ni moom la kilifa yi joxe kon imaam Gora ah ñu bëggoon rek incha allahu rabbi wàcce sunu kàddu ginnaaw bi ñu siyaaree imam Nooru mi nga xamante ni moo doon jiite julli gi fa tabaarakallaahu di xamal li mbooloo mi détail bi yàlla nga ko jaarale ci moom imaam góor aka muy ku ñàkk ñaan itam ndax bi ñu ko woowee wax ni ko fi leen jëm si dañuy ah jumaa ji de daa am lu muy doxee ci jiitalante yi ndax yàlla dogal na su ma jiitee dinañ toog ay jamono ah wax dëgg yàlla yeneen imaam yi di jiite waaye bii nag yàlla daa dogal imaam Nooru moo koy jiite te ñëpp benn lan bu ko defee rek ngeen ñëw jël si ko su ko defee bu noppee waxtaan wi ñu mën koo seq xam naa ne dañuy bàyyi sunu cadre rek imaam Gora présentation bi nga xamante ni war na koo présenté mbooloo mi nga xam ni wax dëgg yàlla war na koo présenté jumaa ji incha allahu rabi mu def présentation bi nag mën a dugg ci sunu waxtaan cëslaayu jumaa ji daal nga xam mooy cosaan li bëgg nañu koo xam waaye xam itam doxinu jumaa ji incha allahu rabi waaye di siyaar mbooleem ñu fi fekk yépp xam naa ni présentation bi dañ koy bàyyi imaam góor Ka rek. mu def ko bu noppee ñu mën a gën a yaatal waxtaan bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëriñ Mamadou ñoo ngi lay nuyu yàgg kii nga àndal sa technicien di nuyu waa Thiès Prestige yëpp di nuyu sunu doom ji Daouda Seck ak ñoom ko bokkal ak kilifa ga leen jiite yéen ñëpp di sant yàlla bu baax di alhamdulillahi rabbil alamin di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga ko waxee di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci événement yi nga lim léegi tàmbalee ko ci tafsir saaxo Pape Malick Sy waaye njool siise mi fi laxase démb waaye ba ci sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck bu Cenaba xalif général de Cenaba ak jullit yi nu xam ak yi nu xamal yépp ñoo ngi wax ni yàlla na leen yàlla xare àjjana yàlla na leen yàlla jéggal yal na yàlla barkeel seeni ginnaaw yal na fi yam ndax ñu ñu tànn lañu eh, di la wan ni ñi ma toogal fii moo di kii moo di oustaz Nourou moo def léegi mm-hmm. xutba bu nga dégg mu jëme ko ci dee ak li li nga wax léegi mm-hmm. di sant yàlla bu baax di leen sant nag ci ñëw gi ngeen ñëw fii di leen wane sunu contentement ndax wax dëgg yàlla ñun baaxawunu woo kenn naan ko fii wala di ko jéem a wax dara mm-hmm. yàlla tax nuy def lu nu fii def ku ñëw nag nenu ah danoo bëgg na gis li ngeen di def wax dëgg yàlla dañ cee kontaan te duñ la ko tere li jiitu moo di jumaay ji euh, ay mag yu baax ñoom ñoo ko sos dama ciy tudd ñett képp yi mënuma tudd ñëpp waaye yàlla dogal na fekke naa ko xam naa leen waaye dama ciy tudd rek ku mel ni Baye Jabel Dieng Baye ma yoroon ndóoy euh, góor gi Ali Guèye euh, Sow ak si Cissokho ak ñooñu ñooy ñenn mag ñi nga xam ne nag ñoo ko jiite ba ñu lëg tabaxee jumaa ji ba pare ñi ñu fi jiital mu njëkk fee jiite moo di bàyyi Muudu Fall ko fi yàlla euh, jëlee am na koo xam ni rak moom di bàyyi Ousmane Sey ñoo ko bokkan ak bàyyi ba bàyyi Habib Sey ñëwee ñu dugal ko moom itam mu nekk fi waaye nekk fi ak Alaaji Mor Jaxeer ñooñu ñoo fi nekkan euh, ba ci ala ndiol mi fi laxas dem waaye ak nun ñi fi ndeesaan deegun yal nañ fi yag nak ñag leena ñaanal li ci dess nak juma ji ñu ko sos en 1967 euh, juma ji mi ngi joge ci loxol aladi modou ndiegan moom la ben euh, ingénieur euh, entrepreneur bu ñu wax dout Diagne mayon terre bi mu nekk titre français moom itam ca mbaaxam ak nit nek nit yalla mu ñew ba ci magni mu ne leen foo ngeen di ñëw kër ma alaaji loolu sori nag métti na ajjuma ju jot naaj wi tàng na léegi daal téere bi mën nañ ko jox foofu leen ngeen def ko juma yem Madina Fall ndax Madina Fall war naa am juma mm. lii moo ko sos 1967 mag ñu góor góorlu ci taxaw ci ba defar ko nii mu nekk juma ñu ngi ko julli en 1980 donc kon noonu la demee bi ñu ko jullee mag ñooñu ma la wax ñoo ko jiite euh, def ci seen kem kartan def ci njàmbaar waaye nag nekkan ay mage royukaay di boroome xam-xam yu rëy bi ñu fi jógee nag ah damay gàttal résumé nun ñoom mag ñooñu noonu tànn indi nu fii ndax nun jàkkaay marché la jumaa yi marché la nekkan waaw sisi mi ak moom nun jumaa yi marché la nekkan waaye mag ñi ñoo nu jël indi nu fii bi ñu fi nekkee nag nu xool ni jumaa ji mag ñi 67 ba nëgë ni 2008 bu ma juumul lañ ko tàmbali waaye ñu xool ni li fi mag ñi defoon day jamono jooja lii la laajan waaye nu 96 lañ fi def soxoroor bi ndax judd julli nañ fi boobu ma lay wax muy 80 ba 96 lañ fi doog a def soxoroor bi nu itam bi nu ñëwee nag ànd ko ak waa juma ji ñii ma ñii feeñ fii ak ñi feeñul ku mel ni Mor Ndooy Pape Wade ak ñi nu ko bokkal nga xam ne ay jàmbaari fakk tëdd lañu du mënumaa lim ñëpp waaye noo góorlu ba yokk ci jumaa ji côté bii lu toll ni jumaa ji mu di côté ndujoor bi waaye yokk ci ginnaaw gi lu toll ni jumaa ji waaye yokk ci wetu euh, noor bi lu toll ni jumaa ji fii nu nekkit amal na benn pantre bu nekk fii waaye jële ñu jële ko fi indi fii def fii techniciens yi man fee nekk imam bu ñëwee toog fi Euh, ñu wut fii benn néeg boo xam ni bu demoon ba imaam njàppam tooñ man na faa yeesal njàppam yooyu yëpp de nun ñoo ko fi def ak ventilateur yeeg yi ci aju morgo ba li ci ginnaaw yi ñu góor góorlu ba taxawal ko ak jàkkay jigéen ñi waaye nag nimmali ñu baree bari te ñu ko def nag nanguwuñu ma tudd leen <laughs> waaye kenn ki moom dinaa ko ñi mee tudd ndax maanaam moom daa tabax jumaa muy Ajaa na bu dukk na jàppale na ci ba baax. waaye sunu geneen njabootu bopp goo xam ni. ñoo ci jàpp bu baax. te ba bërki démb dañ maa woo di ma wax ne pas góor dimbali nu ba booy waxati bu nu tudd. moo tax fi mu ne wax dëgg ñëw moo leen a tudd waaye nag. yàlla xam na leen. jumaa ji am na ñu leen xam yàlla la def ñoom xam nañ ko yàlla xam na ko li leen di ñaanal rek. mooy fa muy jóge yàlla na yokk tabarkeel. waaye nag jàkka ji ku ci ne. weer wu dee. yaa ngi ciy def ba bisub tey ma xamal leen daal jumaa la joo xam ne ñëpp ci jàpp waa Touba Prestige ñu ngi leen di nuyu ak kilifa yi leen yebal ak ñu ngeen àndal yëpp sëñ moo sëñ moor ak sa technicien bi nga àndal ni ko suñu imam waxee di suñu imam di suñu yaay man ci sama wàll ah, di la xamal ni loolu mu résumé mag ñi euh, sosoon ko ba fi mu agsi man fi may waxee mooy moom moom bi mu ci jotee ci ay loxo la nekkoon dëgg la waaye depuis mu mu ci jotee ndax bi fi mag ñi nekkee moom lañ tànnoon moom El Hadj Mor Jaxeer Njaay mi nekk fii jiite bi alaaj Hadj Mor Jaxeer gaañoo mu xam ni ne kenn di jiite dina metti ci la jële Oustaz Njool jël ma man mii booba ak léegi mu war a toll ci ay ñaari at ñett noonu la ko yaatale jël ma ni ah man dong manuma ci dara alaaji moo di jigéen suñu maam ji moo la wax naan nag wu loof kenn mënu koy kenn ku ko bëgg yëkkati di fa des mu ne loof la nag loof nag kenn nit ku ko bëgg yëkkati di fa des kon nag mbooloo ci jàpp moo tax mu yaatal dugal na ci copte ustaas njool mu topp ci moom man mii mu toftal ma ci ci mbaaxam liggéey bi itam bi ko mag ñuy jot yoree di ko doxal doxalin bu rafet ba muy agsi ci ay loxoom wax dëgg fii mu agsi ni tey moom ak ñi mu tudd ci seen góor góorgóorlu seen taxawaay moo indi fii jumaa ji waaw ñoo ci def wax dëgg yi nga yëpp yàlla ko jaare ci moom mi ak ñu ko bokkal ñëpp nag ndax bu jëkkoon Pa mi booba guddi gu nekk dañoo sédd xaaj koñ bi kër gu dañ ko sédd woon daañu fa dugg ku fi ku ne jox di jox jox 1000 def nañ ko ab diir ah ba yàgg ñu àll ko teewul nag ñoom jaamu yàlla yu baax yi kenn ku ne fu ñu toll moom mii léeg-léeg mu poñe ñu ustaas mbay ñu ngi joxe nangam surtout ustaas njool mii waaw démb rek mu ngi ko wax joxel fukki junni di joxel vingt cinq mille kenn ku ne mu la joxel nangam nga daal di joxe yooyu ci lañ nekk di ko doxal ba léegi wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne jig na jumaa ji lool ndax fii mu agsi bi mu fi nekkee ak léegi la fi jumaa ji agsi loolu nag ko dëgg ñu ngi ko ci ñaane yàlla

خيرو أم في نايا أم في لون لك دين يعني يلا يلا سخ تلون في جام ويلا كي يلا نكو يلي تم توار كذا سين تلفزيون بي أ لي خلي وقت كوكو تكلم يلا كي يلا بارك يلا تبار كي أنت في أ لول دال لنجون دال درك لحتان بي واو خد بي مهم نيكو خارج لين يشيد نحال بنتو المي ديرك تدي مهم كن كنه ديم بين بقشام بين جيل دم تلفون تشتوبه li ma ah sëñ Pape Mahi dama dégg ni dafa nopp li mañ ko ah, waaw ah waaw moom kañ la feebar ma ne ko ba mu dundee ba mu dundee kenn ku ne sa feebaru dee mooy dund gi ngay dund ba mu dundee la feebar feebaru dee ndax benn sage-femme dafa li xale bi li ko xale bi xale bi jooy mu jooy ñu ko looy jooy mu ne dama xamul dama li wala dama doggali dama xamul dama réew li wala dama dogg li mm-hmm. moo tax moo ne kañ la feebar ma ne ko ba mu dundee la feebar mm-hmm. kon ku dund rek sa feebar dee taxaw na loolu moo tax ñu delloo ko taxaw ku delloo ko xul boobu ci dee rek jaaj suñu bopp jaaj ñëpp xam ne kenn ku nekk dama ko wax fii démb bi ngay juddoo ñu lay tudd dañu indi xarum tudd mm-hmm. tër ko rendi rendi gooku ñu ko rendi dañ lay wan ne kooku mooy finalité bi waaw départ baa ngi nii areew baa ngi nii ñu indi xaal ñu tëral tëraay boobu ku ne di ko tudd waaw kon nag moo tax nag ñu def ko ci dee xam ne ñun ñëpp lu ñuy xaar jar taragal nag ndax dee du ree ndaw la lu yàlla yónni ki koy yónni laq ko ci gannaawam rek mu yàlla suñu borom yàlla yàlla ci xiir ci boppam. Euh, li ci nuuru ñambaas yi yóbbaale nañu liñ ciy leeral rek mooy siyaaru bàyyi mun jigéen bi nga xam ne bii moom lañu koy defale bi mu joxe mag ñi jumaa ji. dañoo dem ci moom ni ko dañu bëggoon bu fekkee da nga am tool loxol kajoor day weesu day weesaloo bo amee ab tool ñu di la ko bayal muy leen déedéet yéen alxuraan doy na ma ci yéen comme waa màkk ñi dañuy ñëw di ma tàggu si pour dem màkk dama bëgg bu booba ñëwee tool baag mi ngeen bon mébat ak yooyu yépp ngeen ñëw wàccee kaamil ñaanal leen yàlla ñu dem ak jàmm jël si ak jàmm waaw loolu mooy sababu njukkal la woon moom itam mu leen déedéet tool moom kenn du ngeen ma ko bayal waaw li ngeen may defal daal mooy ñiy dem màkka na ngeen ñëw wàcceel ma kaamil yebe leen ko ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm loolu mooy siyaar boobu nga xamante ne bii moom la ñuy defali bàyyi mu ndigal maanaam bu ñuy waaj màkka moom la ñuy waa Madina Fall loolu leen jagleel ñu dem di ko fa defe ñu di ko def mag ñi di ko def di ko def di ko def di ci ànd ak ñun ba jóge fi yàlla dogal sëñ ma niir toog ba sëñ ma niir toogee mu fedd liwaat la ni mankat kat lépp lu ku sama baay amal wëllëre rek dama koy jàpp sama fukki loxo dama koy continuer waaw moom itam mu continuer loole ak nun ku fa ñëwit dafa lay wax ni la kaamil bi waa Madina Fall ko moom ñun ñii mën nañ ko waaye dañ leen ciy jàppale kon seen kaamila la ah fa tabaarakallaahu nu di ko taxawee di leen ci wóotu ñoom ñii ndax nun yàlla def noo dogal nuy benn lu way amé sa morom lool la amé lu way wax lool la sa morom wax amul amul ñaar amul ñet bu alaaji góor a xase yëkkati kàddu ñëpp ci lool la waaw kon fa tabarakallah loolu yalla nako yalla yàlla saxal ah jumaa ji nga xamanteni bi ñu ni itam moom moo fexe ba mel ni ak ñim ko andal yalla nako jitté témir at wa yalla nako ko at ah tanu ko wa yalla nako at tanu ko ngeen baal ñu àq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu ngi fii ci jumaay grande mosquée gu Medina Fall ëttu kër diine ji tey fii la ñu ñëw di ko fi def si waaye nag dafay mel ni magi taalibe yi li ñu wax leen na nañ oustaz àll mbay mii ni bëgg a jox nag moom day sunu wéyjur ci ñaari wàll day sunu wéyjur ci diine ji waaye day sunu wéyjur ci wàll wii ñu ne itam waaw moo tax rek ñu euh, xawoon a dog kàddu gi foofa ginnaaw bi ñu siyaare yi itam euh, euh, sunu mag Pape Wade mi nga xamante ni mag ñi cité nañu ko ci taxawaay bu am solo boo xamante ni wax dëgg yàlla moom xawma woon ni sax boobu taxawaay la am ci daara ji man damaa jàppoon ni ci jumaa ji damaa jàppoon ni rek moom ci social ni muy defee Madina Fall ñëpp xam ko ci wàllu social ak solidarité muy jàmbaar joo xamante ni ñaanal ko yàlla nii ko mag ñi sitee ci diine ji cité ko ko ci néegu yàlla bi yàlla yàlla barkeel ko ci barke nit bi salaay salaam xam naa ni rek euh, euh, dañuy bëgg rek incha allahu rabbi Euh, sunu sëriñ bu daanelee kàddoom genn kàddu ci ndaw ñi nga xam ñoo yor barab bi ñu tëj ko bu ko defee ñu mën a tëj sunu émission bi nga xam mooy ëttu ko diine ji ndax waxtu yi mat na sëkk sëkk sëkk te bëgg nañu incha allahu rabbi ñu jàllale message yoo xamante ni ñu koy dégg dinañ ci mën a jànge xam ne jumaa ji jumaa ju am taxawaay la ci réew mi incha allah billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyoo jullit yépp waaye di jiital ci nuyoo bi suñu imaam alxaaj goraka di ci tekk uh, imaam xaaj nuuru ndaw tabaarakallaahu ak suñu imaam oustaz babacar ñing ak uh, waa prestige yépp xam ni yéen a jël si waxtaan wi sëñ Modou ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ziar waa prestige yépp ba ci kilifa ga macha allah ah ñun nag xanaa kàddu yi cant rek waaw sant suñu imaam yi nga xam ne ndaj ni tegali bu jubee ndab ba jiitu moo moo jub tabaarakallah ñun suñu wàllu ci jumaa ji nag ñun bayaan la ñu féetewoo ñooy tabaarakallah imaam encadré ñu suñu imaam yu baax yi ci wàllu bayaan bi ma ànd ko oustaz uh, Gora Diop tabaarakallah su bayaanee ñaari ajjuma ma def ñaari ajjuma waaye yàlla dogal fan yi sax imaam ni woon feebar bi moo tax bëgguñu jataay yi di yàgg motax ñu arrêté ndi won ko wa insha ba kéro mu ñi joxat digal rek waaye damay wax ni euh, ku am kilifa gu bax do man lu dul sant yalla ak ñaanal ko ndax ñun dañuy dem ci yenen barab bi ci dess di ñew fi di gis mom ni mu doxale ak ni mu encadrer njabot gi tabarakallah te nii oustaz door wax ci jumaa ji ak oustaz ñing ni ñun ñepp ben lañ soo demee ci jàkka jee nga xam ni mooy imaamu ratib moo ko jiite tabaarakalaaw ñun ñi ñu topp ci ginnaawam noonu la jàkka jooju mel ba fa mag ñeey bàyyi am na nu meloon mag ñi lañ mënoon yépp def nañ ko waaye tey boo demee ci jàkk ji boo fa duggee ni sa xol di seddee ci jumaa ji noonu sa xel di seddee ci jàkk ji tabaarakalaaw li mu wax ni duma laal xaalis loolu mooy doxal liggéey te loolu ñëpp miin nañ ko ci moom dafay exécuter rek lépp lu ñu war a def ñu ñëw tëral def budget mu ñëw signé ñu génné loolu mu taxaw liggéey bi ak ñi mu ko ànd ak ñoom pabat ak ñëpp ñu liggéey ko looloo tax liggéey bi tabaarakala ak si fii ci wàllu bayaan yi itam noonu la ci taxawee ñun ñii képp koo xam ne def nga bayaan loo ci def jaat-jaat boo ci am dana la woo conseil la la suma sañoon nga defe nii defe nii kooku ñu ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla baax ni ñu koy ñaanee toujours suñuy waxtaan ñaanal ko yàlla mook ñi àndal ñëpp yàlla na yàlla guddal seen fan te yàlla sottal liggéey bi ci seen loxo ba ñu xëy joxe caabi yi dundaat lu yàgg a yàgg ba li ñu war a def yépp ñu def ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kàddu yooyu daal lañ ci doon sànni bi kàddu yi cant rek tabarakallah ndax ñoo mënuñoo sant seen bopp waaye ñun il faut ñu sant leen ndax dañuy dem fu ne di ñëwaat fii xam ni fa ñuy dem ak fii wuute na te seen njub seen xam-xam ak seen encadrement moo tax tabarakallah liggéey bi avancé nii kon واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله نيغي نوي نييب دي گريم نييب دي كومونسي سي امام اك ني توپ سي گيناو نين نك نيوي نداو كارتي بي نيوي نداو گور ماغي نيك في نيكو استاس الله وخه نين اي نداو لا ني ريك دي تك ني جوخ ني ليگي لين ني ليگي لا ني ديف توپ سي گيناو سابو xaalis da daje lu mu néew néew rek ñu ñu sotti def ci jumaa ji du kenn mënta xayma ni temps lañ ci def lépp suñu biir la jéggaanuñ ko fenn saw ñaar fukk sama ñaar fukk ñaar fukkeel saa ajuma ju ne kenn ku ne joxe ñaar fukk boole ko lii imaam di dayale lu fu mu toll rek lu mu toll lu mu néew néew ñu def ci dara ñi lañ ko liggéeyee du architecte du ingénieur du dara ginnaaw plan bi ci biir jumaa ji fii lépp a ngi fi waaw borom mm, xam-xam lépp a ngi fi maanaam lépp lu ñu laaj xam-xam mi ngi ci biir jumaa ji du lu ñu jégaani fen bu ñu waree defar plan am na ku ne ci jumaa ji ku ingénieur bu ñu techniciens yi bari fi moom moom macha allah chaque dimanche ñu daje fi xool li ñu war a def kenn ku ne wax sa xalaat moo tax erreur mënul am ndax eh, am na ñoo xam ni seen yàgg liggéey bi am nañ ci fanweeri at ci maçonnerie ci lu mën doon lii daal moo waral ñu egsi fii bu ñu waxee tamit ba ñëpp d'accord fu juróom xam-xam taxawee benn bu bi ci gën a jub bu waxee rek dañ xam ni bii jub na imaam ni acca defal leen loolu lii moo ñu indi ñu agsi fii te ñu ñaan nag parce que liggéey bi des na lu bare bare mais ndegam liggéeyu jumaa moom du gaawee eh, gaawul ñu koy def ndànk-ndànk rek topp ci ginnaaw yàlla na leen fi yàlla yàggal ñu topp ci seen ginnaaw ba li ñuy yéene lépp àgg ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax occasion bii ngeen nu moy nu mën a wax waaye ngeen won nit di sunu bokki jullit yi li nga xam ni moom lañu jot a def fii ñoo ngi leen di sant bu baax li ci des sant ñi ma àndal ak ñi ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñii kenn nit ku ci ne da ngay làmb sa poos boo laajee ba pare yëkkati su ma nit wooyee ni ma yaa ngi liggéey ma ne waaw mu ne ma jox naa la 3 millions ñoom ñu fexe cent mille wala leneen deg ca lii la ñu àndi kon nag ñoo ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla sunu ànd bi yal na yàgg sunu xarit bi fi jógee fa mu jëm yal na ko dàqal te gëm mën ko nun moom li nu gëm ci moom mm-hmm. ndax fànn yëpp la noo jàngale ku woyof ma ci wax yëpp bari na waaye dal kenn la moom moom itam waaye nag mbaax googu moo ne ci ñi ñëpp ñoo ma gën fuuf waaye lu ma ne acca oustaz ñi ngi bu ko fekkee bu ko fekk góor a wax na ko waaw amul lu mu ca teg nooru ko moom mii fi jóge noo àndoon ca jumaa yu marché ba fii mii mais noo werante ci benn seconde mosuñu koo werante ma wax ni lii mu ni lii mosul am ci àddina xam nga nag loolu lu mu jigee vingt ans loolu rafet la waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm. kon mi ngi noonu rek fii ñu nekkoon nga xamante ni mooy grande mosquée Medina Fall fi lañ nekkoon ëttu kër diina ji tey jii fii lañ ko doon defee fa tabaarakallaahu ngeen dégg euh, mag ñu baax ñii yiw ñu tedd ñii seen kàddu yi yi ak ni ko rafetale Euh, li olof yi di faral wax rek ni ndabul teraanga xëccoo ko ba mu xar nee na buuxante ko ba mu xar moo gën a rafet di ko xëccoo ba mu xar loolu nag moo fi feeñ tey fa tabarakallahu imaam góor aka yàlla dogal na moom la nu toogal nii imaam nooru fa tabarakallahu oustaz àlla mbay fa tabarakallahu ni mu ko tuddee ba ci sunu baay babacar mi fa tabarakallahu ak mbooleem ñi fi toog ñëpp ñu dégg it fa tabarakallahu Pape ni mu waxee ci turu ndawi euh, jumaa ji waaye siyaar nag sama mbokkum bopp ndax nag sëñ Maxtaar moom ñoo bokk benn ndax moom doy na kéemaan xam naa ne xaju fi waaye dinañ fi ñëw yeneen jataay boo xam ne loolu lépp dana feeñ ci kàttanu yàlla ziyaare yi itam bu baax waa jumaa ji yëpp di leen jaale fa tabarakallahu imaam Ndiol Cissé mi nga xamante ni moo fi jige doonoon borom xam-xam doonoon nitu yàlla piir ku woyof koo xamante ni fa tabarakallahu ah buñ duggoon Madina di ko laajte yaakaar naa ni dinañu dina dinañu sonn lool bala noo dajal ndax foo dugg rek nit ku ci ne yëg na boppam ci boppam kon nag yàlla yàlla gën a gën a dolli ay leneen foo mu tëdd ñaanal ko yàlla itam ñi nga xamante ni itam jiitlante na ak ñoom fa tabarakallahu muy ah, Pam Malick mi nga xamante ni moo doonoon porte parole xalifa général kullu Tidiane fa tabarakallahu di Serigne Babacar Sy Mansour waaye ziyaar yi itam tafsir saaxu moom tam tam ñaanal ko yàlla foo mu tëdd yàlla na sama borom defal ko taw feex mu gënal ko fii mu jóge ñaanal Cheikh Ahmad Tidiane sekk mii fi jóge tey jii ci ajjuma ji itam doonoon xalifa maam Amari Ndaat sekk ca Canaba nga xamante ni ñooñu wax dëgg yàlla doonoon naan ay kenn ci diine ji kon nag bu nu jiitoo jaadu na bu ñu toogee ci bëccëgu àjjuma ji ñu fàttaliku leen bu baax a baax imaam góor a gën di la sant rek ci taxawaay bi ndax bi ñu ko woowee ku jàppandal yëf yi la dama ne ko woon sax sa sa sa danoo bëggoon a jàpp bis booy jiite mu ne ñun moom amuñu bis bu ñuy bu dul jiite imaam bii jiite ak bi mii sama bis bi may jiite ñooy benn bis la kon nëwal nga jël si ko bu ko defee rek ñu mën a def waxtaan wi incha allah di ko sant ci taxawaay boobu ak jàppandal gi ñaanal ko yàlla fa tabaarakallaahu di ko seereel ñi fi fekk ñëpp ak ñi toogal xamal leen ni jataay bi lu jiitu ñu koy def li mu mën a wax ci téléphone bi confirmé na jataay bi wax dëgg yàlla mboolem lu ngeen seere ci taxawaayam bi ñu la def kon ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel imaam di ñaan bi macha allah bi xaw na noo tardé waaye def na yitte ba nu eh, jël li nu war a jël ci jataay bi muy xutba imaam bi ak jiite geeg yépp kon su ko defee rek ñu tàllal loxo yi ñu def ñaan jox leen rendez-vous ci beneen ëttu kër diine ci beneen jataay incha allahu rabbi ak beneen jumaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu العالمين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك